fu ma la gis sama xol bi neex yaa ma ko tàmmal waay am nga ngor teg si yaatu nga sa mbaax ma jaaxal waay sa taar bi nga làmboo moom ma yeem ni làmp si bëccëg waay jërëjëf mbokki internet yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel di leen wax déwénu ca ndax maa ngeen xam naa ni

tere ñu bëgg a yu bari ndax ku ne xam ne ni Pape ci fi mu ne nii musique yàlla def na lim ci bëggoon ci ambition yàlla mu ngi koy defal Sénégal yëpp teg ko ci teg seen bët muy la conquête de la scène internationale te vraiment vraiment vraiment vraiment on touche du bois dañ ñaan ko rek laf cat laf cat yàlla may ko rek mu yeggale ak sagom Pape maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum buur maa ngi lay fay bu baax di la ziar. Hein. daal bi sëñ Mbacke na bu baax bi di la jox sa cër ak sa wàccuwaay di nuyu suma frère Sele ak équipe bu vraiment Dakar Actu bi yëpp di nuyu sama jëwriñ muy Serigne Diagne mhm. xam nga moom ñoo bokk maam Cheikh Anta Mbacke mhm. di nuyu suma mag aussi Yves Diaw The King su ma nee The King rek moom xam na quoi donc The King maa ngi lay jox sa cër quoi euh, bëgg nag lool tey ngeen ñëw seet si ma. parce que namoon naa Dakar ak ci vraiment. Mm-hmm, mm-hmm. gën nañoo jàkkaarloo gën nañoo jàkkaarloo euh, gën nañoo jàkkaarloo depuis bi ñuy pare Dakar Arena. wala te yàlla dogalu ko wala te yàlla te yàlla dogalu ko. xanaa Pape mm. euh, tey anniversaire u bébé Bass la. Mm. ni ma la ko laajee woon rek. Mm. sànq dañu toog di waxtaan ci yow. ma gis ci kuy wax ci yow di ko jëlee ci biir mm. dënnam mm. Euh, Kébé Baas dana naqaree résumé mm. mais yan qualité ñoo la gën a marqué ci soxna si waaw buur mooy li ma la wax sànq rek euh, xam nga tey man munu di wax euh, ci bébé lu bari parce que noonu lañu yàlla bindee mm-hmm. donc man mi sax du ma bëgg kuy wax ci man mm-hmm. nit ku nekk nag ak ni la yàlla yàlla bindee quoi mm-hmm. mais jigéen la jigéen la bu baax boo xamante ni euh, suñu parcours dafa metti suñu parcours aussi histoire la ci ni ñu xamante ni ñu àndee ba ni ñu sëyee donc mm. vraiment euh, muy jàmbaar nag quoi jàmbaar joo xamante ni ànd ak un artiste homme de public dafa metti mm. mais géré na ko mm. parce que booy ànd ak ku siiw di nga gis lu nekk di nga dégg lu nekk di nga daj lu ne mais ànd léeg-léeg mu neex ba nga yaakaar ni du naqari mais léeg-léeg mu naqari ba nga yaakaar ni dootu mës a neex donc euh, je pense que ni tey ànd bu bu bu naqaree ci nga war a gën a téye bu neexee nga bàyyi nit ñi ñëw savourer ko mhm. donc moom comportement boobu la am sama diggante ak moom mhm. donc vraiment Euh, tey nag yàlla dogal mu tombe ak anniversaire am. Mhm. et que ñun ay porteurs de voix lañu. Mhm. et que tey dañu toll ci jamono joo xam ne jamono bi moo moo bouleversé. Mhm. nit ñi dañu découragé. nit ñi dañu stressé. donc ba ci kër yi sax tey am na kër yoo xamante ni tey ak confinement bi. stress bi jàpp na leen ba nga xam ne. Euh, y a des daal y yi am na kër yoo xamante ni aussi confinement bi tax na ñu découvrir seen njaboot. confinement bi tax nañu toog dal vraiment euh, nekk ak 24 heures sur 24 seen i soxna. nekk ak 24 heures sur 24 seen seeni njaboot. donc euh, loolu marqué leen. donc yooyu nag laa dajale boole ko. donc ma ne vraiment jigéen ñi daal dañ leen war a sargal. dañ leen war a teral dañ leen war a feccal dañ leen war a woyal. ndax ki nga xamante ni day xëy suba du nelaw di la toggal nga lekk. comprendre nga di la toppatoo di toppatoo sa njaboot donc bo toog ak moom à un certain moment déglu ko ak mom c'est vrai que yow góor bo xëyee da ngay dem liguey ba le soir nga wacc mais bo passé 24 heures sur 24 def ko nak ñetti wèr di nga ne ah jigen ñi kat wax deug yalla kon li lañu def ci kër yi ay jambar lañ iya. mu tombe nak anniversaire donc iya. mané kon limay def rek comme que man eh, sama baat la am waye iya. mu dugg studio rek fental ko ben affaire et que eh, tamit dëgg yàlla mérité na loolu. Hmm. jigéenu Sénégal aussi mérité na loolu. Hmm. donc jigéen boo ko yoree danga koy gérer da koy bégal da nga koy suturaal. Hmm. da nga koy wormaal. et mu nekk son boo xam ne nag tey man son bi sax dafa ma dépassé. waaw parce que. <coughs> yëngal na kër yi ah. waaw xalaatewu ma ko. <laughs> te mu yëpp am problème. Ah. yenn ñu ngi may woo sax di ma menacé. ah man su ngeen ma menacé ma faral jigéen ñi rek. xam naa ne jigéen ku jigéen ñi ku faral ñoom. kenn du la gañe <laughs> dama ne woy leen su woy méttee répété leen su méttee taasu leen bu taasu méttee ngeen fecc mais bu ma kenn woowati naan ma Pape Diouf anniversaire u soxna si suba la wayal ko ku bëgg ci sa jabar anniversaire am wayal ko et jigéen ñi kër leen borom kër ñu woy <laughs> mu ngi noonu Pape Diouf di anniversaire u bass loolu nekkoon rek ben paragraphe bu ndaw bo xamanteni que dañ ko ko eh, be bass moom tamit di jigéen ju baax di jigéen ju koré di jigéen bu yaatu eh, sànq wax naa ko ni que jabaru star yu bëri tay des fois ils se font aimer mais des fois ils se manquent des fois elles se font détester mais yalla dimbali na la ba lolou dalu la ñun relation bi ñu am rek moy relation bu particulier

Qui a traversé ko hmm. c'est à travers chansons la a hmm. c'est normal parce que man musique la xam hmm. man dama la musique ma dans ko ma don ko la musique. am ci xam xam ci ay secret toute expérience gis nga euh, su amee metti effectivement. Mm-hmm. su ma nekkee sur scène deux heures de concert yooyu. lu ma metti woon rek jeex na. Mm-hmm. su ma kontaanee aussi dama yàkkamte yéeg sur scène. Mm-hmm. donc scène bi mon naa ne mooy sama paradis. mooy suma aljana. parce que je me fais moi-même du plaisir. parce que tey boo nekkee sur scène gis say gis say xarit gis say fans. Mm. Mm. Mm. Eh, Pape dama que souvent Pape. Eh, soo ko defee loo ko warul def ak soo ko li même constat Pape toujours daf lay jox positif ah. ba ci barki démb dama seen vidéo pour marqué ngay souhaité joyeux anniversaire.

mu soutenir ma man tamit yàlla dogal mu jóge fa ma taxawal sama orchestre ci ginnaawam bi mu yëgee ni def naa Cocorico daf ma woo félicité ma bi ma amee sama orchestre di liggéey léeg-léeg damay dajeek moom ci région yi mën naa ne daje nañu ñaari yoon ba ñetti yoon ci région yi ma ne ko grand ñëwal ñu dem Dakar ñu liggéey donc euh, yàlla dogal mu ñëwee ñu retrouvé wu rek séparé wu waat mu dem Euh, yàlla dogal am benn doomam bu ñu wax bijou nekk Genève maa ko nuyu de passage mu woo ma téléphone ñu waxtaan vraiment ma ne ko mais ana grand bi mu ne ma Amath daal mi ngi fii dafa xaw sax feebar temps yi mi ngi Kaffrine affaire ma ne ko nag boo ñibbisee li ma njëkk a bëgg mooy boo demee passe ma Amath parce que Amath talent bi nekk ci moom. Eh. ça me gêne ma bàyyi ko talent boobu di saaw. <coughs> ndax bu doon ñaari fan. man leboom lebal na ma ko ci leen soo jamono donc loolu moo indi bi bi ju ñu bisee ndeysaan dem Kaffrine passe ma amaat ma ne ko grand mun a ma ne ko horaire bi bu mu la fa mu ñibbis mu ñëw Sénégal ñëw Dakar jour bi mu ñëwee mi ngi jaar sama kër yaay ginnaaw ma ko fàtte mukk sama yaay woo ma ne ma amaat egsi na ma ko ah oui mu ne ah kon na lekk joxleen ko mu añ mu grand bi récupéré mhm. parce que fi ma dëkk du ko xam mariste mais man après naa ko jël si donc après ma taal sama dem depuis bobu nak ñu and and fu nek ci bi. Mm-hmm. Gabon Gambie dem Mauritanie dem Guinée xam nga dem nañu Europe. Mm-hmm. Canada fu États-Unis on a fait le tour du monde. Mm-hmm. muy grand bu baax na grand bu grand donc ba bërki dem rek may ngi wax ak mom donc mais nag nit ki di nga tollu fo xamné ne amé sa projet euh lay laaj pour reculer aussi. parce que Ama dafa may ay fansam. yoo xam da len di da len di bëggal ñom aussi ñukoy bëggé donc lool rek mo taxone bon biñu ñu jógee Bercy mu def un pas en arrière donc euh, isolé wu pour liggéey projet donc génne na aussi single bo xamanteni single bu neex la. déglu nako bima ko déglu aussi war ko félicité ko. donc ñi ngi doon déggante temps en temps bu dé barki démb rek déggante nañu. First Lady aussi bu mu génnee woo ma souhaité ma vraiment bonne chance. donc Amath fi këram la. donc mosu fi jóge te du fi jóge bu mukk. nee ko grand yow noppalukul rek. yow heure bo sentiré né war nga ñëwaat liggéey ci keur gi fi mom sa keur la quoi. kër gi fi moom sa kër la muy euh, esprit de sagesse bi mu am muy lenteur boo xamante ni que soxla woon nañu Sénégalais yu bëri parce que depuis lors hmm. Sénégalais yu bëri dégguñu Pape yee ci wala mu yàgg ci hmm. mais man réponse bi na m'a pas surpris ah mooy hmm. gëmoon naa ne que taxawaay bi loolu lay doon euh, Pape ak événement d'habitude Pape saa yu euh, taxawee ci événement bu rëy dina am benn gàllankoor bu ndaw waaye day mel ni après ci la événement bi di gën a di gën a di gën a jag gis nga Bercy bi biñ koy préparé. Euh, la ca amoon euh, grand théâtre mm. euh, ba gars yi fommoon ko. ba mm. moment yooyu noo ko dundee woon dama ko benn instant nga craindre nag lii war na mën a foire loo événement bi. waaw mais buur mais sant yàlla rek parce que xam nga événement. ki koy organiser moomu ko. Mm. askan wi ko moom. bu doon sa événement rek nga tëju sa néeg wooy ba doyal. mais tey toll nañ ci musique foo xamante ni tey yalla am na lu ci cërale ci musique sénégalaise tay mu neex mu naqari musique sénégalaise kenn mënatu ko tudd ko tuddoo ci Pape Diouf dama ci def sama empreinte donc loolu ma koy sante yàlla di ko sante samay waajur waaye nag di ko sante sénégalais yi ndax euh, ku fàttali la fa rek da ngay foleeku c'est le peuple sénégalais qui m'a soutenu c'est le peuple sénégalais

tu vois ba ci suñu Abou Thioubalo tu vois donc avant que y génération di génération ñu gis ni que donc man aussi am naa mission boo xam warna war naa ko roy sumay mes muy lan ay éven ay événement yu mag ay événement de marque donc oser créer lolo waralon tay donc ay grand théâtre mhm. lolo waralon ay zénith parce que musique sénégalaise warul la mhm. musique sénégalaise warul tumranke et jeunesse du Sénégal dañu xam dañu branché dañu ci dañu bëgg di am ay événements yo mhm. vraiment ay yo euh, jeunesse bi wala askan bi dañuy dajaloo mhm. am rencontre ñu bëggé pour waral bu ñu France sénégalais. Gambie. Mhm. Mauritanie la diaspora africaine fu ne yaa ngi dégg. <laughs> ndeysaan ah, ndeysaan Sidi Diop la ndeysaan <laughs> non yëf samba ndanga aduna ku yablu sa bañ waawaay barke wàccul la dungoore yaay jàmbaar paam dawoo xale Thank you. suba moo xam ne wéru ma wéru ma Sidi yow ak Ibro euh, man ak Pape ñu ngi woon euh, en pleine discussion mais ni ngeen dugg see dafa dafa rafet waaw mais foofoo neex Pape sa digganteeg euh, Pape waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna waaw laaj nga ma lu ma lu ma lu ma lu ma sawar a tontu laaj nga ma lu ma sawar a tontu bon damay damay damay am contentement bu ma teew fi tey ñëw ci suma këru mag te damaa ñëw nag suma kër fii sama kër la ndax bi may soog a door ànd ak Iba Sëy euh, këram gi booba kenn xamuma ma ñëw fii Iba indi ma ci moom présenté ma ko mu yëkk yëkkati teranga bu bari may ma ne ma damaa bëgg nga góorgóorlu nag mayu ma la lii rek pour nga génn lekk ko ak a noos damaa bëgg nga góor góorgóorlu damaa bëgg ëllëg fu ma tourné dégg ñu naan Sidi kon bu yàlla defee ba doonaguñu sax dara nag bu yàlla defee ba tey jii ñu dem bañ ñu tudd ah ñu yëg ni ñu yëg ni soxnaam. day anniversaire ba pare bëgg ma waaw dafa maa bëgg trop yaay laa koy wax fu ma déggee suma doom ji la may wax doomam ji léegi bi ma duggee suma yaram daa daw daa daw kott ma ne ma dama laa nam ma ne ko waay maa la raw waay Mohamed mm. ah ñu waxtaan mu kott ma yow doomam ji bëgg ma trop jamonoy kuku sinap kon tey ji euh, plaisir la bu mag kam a ñëw fii kii nag suma digganteek moom àdduna bépp xam nañ ko Sénégal gépp xam nañ ko diggante mag ak rakk la mu bëgg ma loolu yërëm ma raq jox cër magam mag ji yërëm ay raqam mu uuf ñu nag ñun ñëpp te te te salu ñu benn yoon di def ay teranga te bëggul kenn xam ko di ñu waxal lu baax di ñu conseiller lu baax barke Serigne Saliou Mbacké dafa ma naan sii di mën a ko am mu ne ma su ma la gisee ngay woy damay fàttaliku bi may am ay 22 ans 23 ans nekk Lamzo doole gi ngay woyee ak fulla geeg fayda gi mm. sama xel ci loolu rek lay dem kon nag maa ngi ñaanal soxnaam bii nga xam ne bëgg goo gis yéeg a koy fay moo tax ñu bàyyi suñuy téep ñëw kon maa ngi ñaanal soxnaam gi yàlla na ko yàlla may gudd fan diggante bi gën a dëgër ci barki Seydina Mohamed ma ñëw nag ànd ak suma raq muy Ibro Naajo xew loolu ci jamono di suma raq di sama xarit ah moom ñu nekk ay gaayen ah, muy suma muy suma lépp. juge juge juge parcelle ñëw ànd ak man Ibro. sa mag a ngi noonu sa lépp a ngi noonu yow tamit say kàddu waaw. waaw dañuy nuyu dañuy nuyu sénégalais di ko nuyu moom mi daanaka wax nga lépp. ndax waroo wax sax mooy waxaat. lenn daal la ñuy def mooy ñaanal ko jàmm baat bi gën a wér. yàlla boole kook jaboot yi. waaw saawoon baawoon daal. non balaa ngeen dem seen collaboration parce que dañu gis Matar Subatel xàcc xàcc bu am doole actuellement. mooy yéen ñi ñëpp tey macha allah ñu gis leen tey biir Subatel loolu sax benn log daayef la lu ma lu ma doon waaj a waxtaanee ak Pape mm. mais seen collaboration ak Matar Diop Subatel ba dañu gis beneen élan. même bi naa jënd mu gis ci beneen élan Sidi Diop barki démb Bamako euh, wàcce wàcce wàcce wàcce Isaac Modibo Keita ak euh, son frère Sidiki Diabaté tey Pape gis ngeen salange bu neex bi First Lady Matar Soubatel lan lay apporter ci seen musique ah mais Matar loolu dinaa ci sawara tontu Matar Matar ku baax la mataar kilifa la mooy démb li ma doon wax ci sama interview rek ñun dañu nekk ci ndaw dañoo nekk ndaw nekk ci yoon di liggéey mataar nekk ndaw nekk ci yoonam di liggéey ñu xam ni am na fuñ jëm li may wax rek ne kër buñ koy doog a commencé maçon bi day ñëw defar fondement am na foo xam bu ñu fa yeggee électricien day ñëw. am foo xam bu ñu fa yeggee carreleur day ñëw. am foo bu ñu fa yeggee keneen ak keneen day ñëw bagage yi ñu doog ko indi am na loo xam ne defar nañ ko ba mu egg fii waaye am na foo xam dañu fa bëgg dem suñu xel dal loolu nag ci ci Matar Diop suba teel ñu yëkkati suñu jëmm ñëw ba ci moom dénk ko ko waa muy ku baax ku ubbeeku ah di remercier waale tamit suñu DG Souleymane ñoom Baye Niass Mara El Capo Sora Ale Babs suñu suñu beneen frère dafa nekkoon ci yoon bi di ñëw muy Bastung di suñu xarit ñu ñëw nekk nag ay raq nekk ci ginnaam topp ci ginnaaw mu di ñu digal ñuy def mu di ñu tere ñuy bàyyi ñun ay xale lañu rek ba pare maa ngi profité waale fii di jëkkatiwaat suñu jëmm yi di ko dénkaat sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ñu def nu ñu mel. du ñàkk yenn saa ñu juum ay xale lañu. waaye ndax ñun lépp lu ñuy def rek ñoom pour ñu bëgg la ñu ngi yëkkatiwaat suñu jëmm yi man ak Ibro Bass Thioung ak artiste Sénégal gépp ñëpp di yëkkatiwaat suñu jëm yi di ko dénkaat sénégalais yi di leen ñaanal yàlla ñu ñaanal ñu ndax fépp fu ñu génn drapeau vert jaune rouge la ñuy indi lañ fay yóbbu bu ñu ñëwaat tamit moom la ñuy indiwaat ñu ngi ci ginnaaw Matar nekk ci samit suñu mag yi nga xam ne mooy li ma sànq moom yàq moom ba balaa balaa ñuy dend ak moom sax day yëkkati kopparam terangaam idéem lépp yenn saa ma woy dara mu woo ma ne ma boo ko woyee woon fii moo may dàqal de ma dem wewee ko noonu mu neex trop kon nag moom it ñi ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko ñaanal yàlla sutura di ko ñaanal yàlla xéwal gu saawaan baawaan waaw suñu collaboration ak Matar nag man tuddee wu ko sax collaboration ndax yooyu day jeex man li ma ko tuddee famille la nday ak bàyyi lañu ñu bokk li ñu séq ak moom def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi mhm. dem leen ñu dem toog leen ñu toog jël leen ñu jël bu leen laal duñ ko jege loolu la ñu ak moom tey yàlla na yegg niw yoon amiin waay waaw allah jërëjëf <laughs> euh, mu ngi noonu gis ngeen na euh, bro mais comment maa ngi ñëw <laughs> ñoo ngi ñëw ci salle bi <laughs> eh, booy bambara nice Siri non yow kay léegi bambara nga gis euh, ah. gis ngeen affaire bi ah. mais mënul ñàkk ah, parce que

waaye nak bëgg ma nak fonk ma donc et que suñu yéene moy mom la la doon wax sank dimbali xalé yi parce que man tay musique sénégalaise amatul lu may prouver ci musique sénégalaise bu gis nga xalé yi ku ci way rek sama yaram day daw ndax boy way damay dégg sam bopp léeg-léeg xale bu mën a way woy sa soirée maanaam dugg foo xam ne da ngay pare rek yónnee ma vidéo bi ma grand déglu lii lii yow rek la mhm. mais buur man dama ko daan def mhm. man Pape Diouf rëyuma dama ko daan def di topp ci grand yi di leen tërbiyu mhm. ànd naag Fallou Dieng Europe Amérique du moins nan ko grand sa morceau bii daf may daaneel grand woy ko et par modestie kon xale yi bu ñuy jël lu mel noonu maanaam di ko andi ci sama côté mani may dégg samay mélodie ci ñoom. ci ñoom. wala samay chanson ñu koy reprendre. léeg-léeg ma toog télé seetaan Momo Dieng di woy man demoon naa. léeg-léeg ma seetaan Sidi di woy Amadou Koumba Géej Saafal Géej ma Ndial Bér Géej. nijaay mm. mais loolu plaisir la. donc loolu moo waral ma ni Matar comme que da nga am label bu tudd suba teel mhm. laataa ma lay jox suma management label Bob, bul ko mhm. maintenir le label La ndax xale yi dañu am talent mais il faut ñu am ku leen woon yoon ku leen coaché mhm. loolu moo waral mu récupérer Boy, la nouvelle génération dugal leen ci sous teel mais man man mais pas trop suba teel ndax Matar maay magam te maay kilifaam donc man aussi sama label mi ngi tudd PDG Group mais PDG Group defaguñu dara donc dañu nekk dans ndax dama jóge ci label bu mel ni Prince Art mm-hmm. te dara ñaaw a nag te dara mm-hmm. ñaaw mm-hmm. donc war maanaam am lu bari lu ma war a def et loolu dañu ngi nekk di ci liggéey donc te liggéey boobu may def mataar mi moo nekk suuf di ko def donc da gis ni que PDG ak Subatel benn la ñoo bokk ndey

pour nga réussir day metti il faut vraiment nga am un bon encadrement Tay buur moy limay wax man amatuma lu may prouver ci musique sénégalaise mm-hmm. ndax boy yi màgg nañu mm-hmm. ñi ngi assuré mm-hmm. ñi mën nañu woy donc li des rek mooy yaatal affaire yi gunge leen jàppale leen xam nga ñu ñu woyandoo jaxasondoo démb gisee. sama rak moom it. wallaahi wallaahi ñu ngi am lu rëy lu ñuy waaj. un jeune talent. booy bu mën a way. ku mën a way. lu ñuy waaj. donc ku taal bay way ku mën a way. donc vraiment daal bu yàlla yàlla yokk jàmm. yàlla na yàlla yokk jàmm ji gis ngeen euh, mooy li ma wax effectivement Pape Diouf patrimoine la ah lu muy prouvé ci musique Sénégal non non à part jàppale ay rakkam ak yu mel noonu. Pape ñu jëmoon ci Dakar Arena. Mhm. le 4 avril ba defoon ci.

pour mieux sauter mm-hmm. donc ñu ngi ci Covid Covid bi jeexagul. Mm-hmm. mais jàppaguñu dara. Mm-hmm. mais ci kàttanu yàlla année prochaine dinañ ko def. te buñ koy def day gën a neex parce que dañ koy gën a yaatal. ndax suma rak yaa ngi nii. donc euh, y aura d'autres artistes yoo xamante ni. xam nga dinañ ñëw rejoindre ñu. bu ko defee mu gën a yaatu. ñu yaatal ko mu nekk une fête nationale. diggante Pape Diouf ak Universal Music diggante Pape Diouf ak New African Music. ak New African Production New African Production manam label yooyu yëpp Pape Diouf boole ko. té kenn du ci gañ sa morom Pape di liggéey liggéey problème. non musique mo dox légui musique mo avancé. Mhm. tay bo xolé présidentielle sax bu amé élection présidentielle bu amé mhm. Ben parti rek mënatul nek mënatul laa yóbbu mhm. il te faut une coalition aduna bi mo demee noonu lépp ko am changé léegi ndax benn lab rek bu yëngu donc ñu ngi wajal euh affaire yu bare bare bare mais yow universel 16 date yow maanaam université rek seize ngeen am. donc waaw est-ce que vous coïncidez yenen date nga xam si yeneen la non non non coïncider parce que nous on travaille avec la communication. benen bi ci top aussi par rapport ak 2000 2000 2020 bi. presque suñu concert yëpp c'est mort maintenant. Mm-hmm. par rapport au Covid bi. donc mais Universal.

par rapport au Covid mais 2021 nous allons ngi pare ñoom date bi gën a ak ñu le 3 avril. à l'Olympia. et que loolu jàpp nañ ne. incha dina Covid bi pandémie bi jeex. voilà bu loolu vaisseau aussi. tey ñi ngi aussi ak New African Production. Mhm. New African Production mooy suma mag Birane Sarr mon nekk Amérique. Mhm. donc depuis 2014 nous ngi liggéey. Euh, muy président de New African Production donc circuit qui ma am ci world music bi. festival yi ngeen di dégg muy festival yu mak ma def ba yalla di dogal may gis ay artistes yo xamanteni ay légende lañu. lu melni tay ay Eric Clapton. di ma suivre ba yalla dogal ma leen di impressionner ñu may recommandé ci yeneen festival donc lolu mi ngi jógee ci circuit New African Production. et que ba ci concert virtuel yi nga xamné tay jot nañ ko def Covid mhm. mhm. parce que on avait anticipé avant Covid bi Dakar Arena en mhm. donc mais ci biir Covid bi euh, single bi nga Union africaine. dañ def nañ ko ci Covid bi. nga concerné Afrique donc dans la sous-région. festival Dresden bi en Allemagne le 15 mai passé donc nous africain nous ko donc ak yeneen ak yeneen. mais le 27 aussi am le lu lu doy lu en streaming. le 27 nak mooy date de gi. Mm. man le 27 bi mooy sama coupe d'Afrique Afrique di sama coupe du monde. C'est suñu coupe d'Afrique, Afrique ñun Sénégal parce que maanaam parce que Pape Diouf euh, est le nouveau ambassadeur de la musique africaine. waaw donc mm-hmm. loolu la le dogal. Mm-hmm. Euh, buur mm-hmm. ñu ciy sant yàlla bu baax. parce que concert bi ñuy joué. concert virtuel lay doon. parce que xam nga léegi euh, ku sept mois. Mhm. liggéeyoo ci artiste dafa metti mhm. mais dañu nekk di ut ay solution pour vraiment xool ban plan la ñuy def plan ban plan bee la ñuy exploiter. pour mën di tëgg donc ci biir loolu nag euh, ñu mu am benn benn benn ay série de concert yoo xamante dañ ko organiser muy euh, le concert de de de Dream Stage. Mhm. Euh, ma bokk ko nag ay tubaab yu bari. mais yàlla dogal na je suis le seul africain boo xamante ni man naa war a jouer ci. Euh, bés bobu bés bi mo rejoué nak ce sera le 27 mm-hmm. août à 11h dina tel nak fi Sénégal 11h la fi nek nek 13h ci diaspora bi Europe nek 6h du matin aux États-Unis mm-hmm. mais loolu euh, live streaming lay doon. mais ñi ko bëgg sétane surtout Sénégal yi ko bëgg sétane seetaan africain yi bëgg a bëgg sot jàppale pap Diouf wa lolu aussi man ci lancer un message solennel euh suma mbokk yi sen frère sen doomu nday pap Diouf tàllal na len loxo ngir ngeen support ma ci concert live streaming nga amal. le 27 août. ku ci bëgg dugg 3 dream stage dream stage. live. après di nga dugg ci lien bi. dina am artistes yu ñu lay wax. mais ñooñu bu ñun <laughs> bu ci rek. cliquer su cliquer di dugg lien bi book ticket 25 dollars yomb na yomb na supporté mm. jàppale ma ngir nag sama yoonu World Music mu leer mm-hmm. sama yoonu World Music mu mën a yomb mm-hmm. sama yoonu World Music mu mën a yomb parce que nag tubaab yi mm-hmm. xamuñu lu dul vraiment euh, les faits maanaam kii kat artiste sénégalais la gis nañ ko xool nañu background gis nañu fi mu jaar saal yi mu feesal kon donc war na mën a nag bokk ci circuit bi nga xamante ni tey. Hmm. maanaam artiste international yu mag yi fi leen di dégg. Hmm. ñu war fa dégg tey doomu Sénégal. mais dafa mel ni fi sama Youssou Ndour tegoon tànkam sur le plan international Pape commencé na def conquête boobu. waaw mais xam nga euh, comme ni ma koy waxee rek tey ñun ci ñoom la ñuy roy. Hmm. te ñun aussi waruñu mujjee puso bi mu réer. te Youssou Ndour war ñu yoon bi Baaba Maal war nañu yoon bi. Papa Thione war nañu yoon bi Omar Pène war nañu yoon bi Ismaël Lô war nañu yoon bi.

baykat yi ak ba at la ñuy yaakaar. Mm-hmm. yal na suñu borom barkeel nawet. amiin barke Cheikhul ci yaakaar suñu borom bu mu tas seen yaakaar. Mm-hmm. di ñaan aussi kilifa diine kilifa aada yi. Mm-hmm. yal leen fi yàlla bàyyi. amiin ñuy mën di taasu ci seen i barke. ngir réew mi mën a jëm ca kaw ca kanam Sénégal forever. One Love. Sénégal forever One Love mu ngi noonu waykat baa ngi noonu l' artiste planétaire Papa Diouf. Euh, gis ngeen euh, sujet yu bari yu ñu abordé waaye tey gis ngeen surprise yu ñu am ci biir émission bi mu ngi si lu lu normal li ma ci jàpp te gëm ko te gis ko te xam ko ci moom mooy concurrence yoo ma suma benn rakk ndax concurrence yoo moon ak sumay mag du ma toog ba léegi di concurrence sumay rakk sumay rakk nañ ñëw ñu ànd liggéey ñu jàppale leen surtout artistes yu jigéen yi nga xamante ne que ñu ngi soog a débuté à travers le label Subatel nañ ñëw ñu jàppale ndax man Pape Diouf kat du ma mujjee poso bi mu mu réer ci samay loxo. kon mbokk yi loolu lañu indi loon tey fii nga xamante ne que moom mooy chez Pape Diouf fii ci Mamel di leen jox dig daje ci yeneen i jamono ak Bourguel waaye Sidi Diop na ma xaar ndax dafa jóge ko <laughs> am lu mu fa def dinaa ko seeti. ànd ak sama gars yi waaw mu toj ko toj ko toj ko. na mu ko tojee nag. si dana ma ko wax. loolu dafa ma koy remercier bu baax. waaw xale bu baax xale bu baax di remercier Ibro Naajo. maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Mm-hmm. rakk kontaan naa ci yéen yal yàlla leeral seen yoon mm-hmm. jaajëf <laughs> di remercier sama rak <laughs> mm-hmm. aussi Bas Cung xale bu baax aussi xale bu yaru doomu yaay Zé <laughs> doomu yaay Zé mu ngi noonu ci caméra yi ma àndoon ci ak Demba Diagne moom tamit ak ki moom may Sele Mbay nu ànd ak man liggéey liggéey bu rafet kon di leen jox dig daje ci yeneen i jamono ak seen mbokk Bourguel su Dakaractu fu ma la sama xol bi neex yaa ma ko tàmmal waay